الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم naa ah, kàddu yi dañ koy tënk benn bi ñu tënk ko ci tàmbale ko si wàllu daara bu si des xëy na fu xew-xew jamono toll mooy lu ñëpp di wax muy feebar bu fi dugg ngénte ak dëj ba àdduna tukki du fi jóg te ñaar yooyu bu fa daara jógee si réew mi dootu mën gannaaw lu mënta ñàkk la sim réew réewum jullit ñu jàpp ne jullit bu nekk war na see jàpp boo loolee sax loolu moo tax mbooloo mi aljabatul muridiya ne seen man-man ak seen xam-xam ak seen bëgg-bëgg na si daara jiitu ginnaaw bu ñu yeesalee suñu yaakaar ak suñu fedd li ngëm ci sëriñ Touba xaadim rasul suñu yéene mooy fépp ñu dundalee alxuraan fépp ñu xamalee xam-xam bi nga xamante ne mooy jariñ tey ak ëllëg ñu ànd kook ñooñee ndax jàpp nañ ne àdduna daa taxawee ñaari tànk tànkub diine bu fi daara jóge mu far tànkub àdduna bu si ngëm yàlla jógee te mu réer am tànku àdduna boobee nag suñu borom féetaluñu si moo tax ñu ne lañ fa jëlee mu néew mu bari nañ ko jël si daara ji ngir mu nekk jaamu yàlla tàllal nañ leen loxo fas yéene ànd ak yéen seen liggéey bi nga xamante ne mooy njariñ àdduna ak alaxira di ñaan boroom dëkk bi nga xamante ne ñaar yëf rek a taxoon mu sañc dëkk bi muy jaamu yàlla ak xam-xam xam-xamu diine ñu jàpp ne ñaar yooyu ku ko si dimbali da ngay tàmbalee si daara xëy na nag jamono dox na ba barke feeñ fu bari ba fees lu bari ba muur lu bari waaye nag mbir mu nekk la ko waral boo ko fàttee njariñ laatam réer la kon yàlla ñu suñu borom dimbali ba boroom dëkk bi la mu bëggoon ak ña ko ko bëggale ñu ànd si ñu leen jàppale loolu mooy yitey mbooloo mi waa aljafa euh, beneen tomb bi li fi dugg sa jaaxal ñëpp ñu koy wax corona euh, yal na ko fi suñu boroom jëlee waaye dafa am njàngat mu ñu si def ñun euh, si ñetti tomb tomb bu njëkk bi. mën naa ne àdduna sépp ko bokk mooy tawat bu ñëwee kër docteur la njëkk ñëpp njëkk njëkk xalaat muy xam-xamu faj lay moytu ba suñ borom mën lee see musal ak bu la dalee da ngay def ba xay na suñu borom mën koo teggi boobu xam-xam ñun ak ñëpp lañ ko bokkal muy tubaab yi muy ñeneen ñi boobu buntu nañ ko dëgëral waaye nag muñ si yem ndax suñ borom jox la ñu yeneen buntu bunt bu si topp ma jàpp na may buntu yërmande ndax suñ boroom jàmm bu nekk yërmande lay séntu si moom waaye nag yërmande jooju itam war na ko war naa tasaaroo si biir jàmm yi seen ñu dox leen ko seen diggante kon li ñeneen ñi wax solidarité ndax jamono dana toll foo xam xamante ne ñëpp dañoo war a lëkkaloo jàppalante yërëmante dimbalante ngir suñ ngir yërmande suñu borom ak ndimbalu suñ borom mën a gaaw wàcc si ñoom kon buntu solidarité boobu bokk na si buntu ñu war a jiital ngir séntu yërmande suñ borom ñu jàpp ne tam solidarité buy am xale bu ndaw si daara gisul yaay gisul baay ku bëgg a dimbali. ngir yàlla mën ngaa tàmbale si moom ndax kenn gënu ko la kon solidarité boobu ñu fas yéene si ànd ak mbokki daara yi fas si ànd ak mboolem ñu ko yitewoo di ñaan itam ñi yilif réew mi ñuy joxe ndimbal li ñu tàmbale si daara yi bu ñuy xeex mbas wala leneen bunt boobu da waruñu koo fàtte mënuñu war a jiital ba moo tax may ñaan ne bu fekkante ne lu mel na julli si jumaa yi julli si jàkka yi ndax ku bàyyi marché mu ubbeeku bàyyi barabukaay mu liggéey mu ubbeeku war nga mën a def pexe ba jumaa ak jàkka ubbeeku moo tax ñu ñaan itam kilifa yi yu yor réew mi ak kilifa kilifa yi diine yi ñu mën a waxtaan ba jubóos noo xamante ne nii jumaa dana ubbeeku jàkka dana ubbeeku ñu mën see jàmm yàlla sa lor du am loolu itam bokk na si suñu yitte loo xamante ne ni ñu ngi koy xeex parce que ko ànd ak yéen Ah, ñetti bunt yooyu buñ ko xoolee bu njëkk bi muy faj si xel la yóbbu ndax xel mooy indi xam-xam boo jàngee mooy indi tam nga mën a jariñoo ko suñu borom bokk na si jumtukaay yu ñu jox du am aadama mu wutale xoog leneen mooy xel mi beneen bunt bi di yërmande xol la ndax yëg-yëg si xol lay jóge ñetteelu bunt bi ruu la ndax si suñ borom la jóge si suñ borom lay dellu ñetti bunt yooyee nag lenn koy tënk leen koy gàllankoor muy bakkan kon buñ tàggatee suñu bakkan mën naa def ñett yooyu ñu jëfandikoo ci suñu borom buñ ko sàgganee mën nañoo womat ba seytaane yàlla na suñu borom musal dimbaluñu ba li tax suñu borom wàccee doomu aadama si kaw suuf ñu nekkal ko fi ngir dundal ko dundal suuf nekkal ko fi ngir jaamu yàlla nekkal ko fi ngir sagal mbinda lu mbind yàlla na suñu borom boole ñu si mbooloo moomee di ñaa am nañu yaakaar ak ñaan nag yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi si alxuraan boo nu ko ñaanee suñu borom mën na koo nangu kon xanaa ñu tëjee alxuraan bi nga xamante ne moom dong moo dul raf ngir kàddoog suñu boroom la yàlla na nekk ab jant si suñu àdduna yàlla na nekk wéetal si suñu bàmmeel yàlla na nekk avocat bi si penc ba si ñun asalaamualeykum wa rahmatullah maam Cheikh Seye di coordonnateur aljafatul mouridiya ànd ak mbooloo mi lenn si mbooloo mi Abdou Khadir Kebe Abdou Khadir Gaye docteur Abdou Khadir Gaye ak Serigne moor Mbay di ingénieur di kilifa si Ndakaaru ak docteur Ousmane Gueye Euh, mbooloo ma ñi si des ñu nga si yitte yi ndax lu taxoon a jóg tey jii rek mooy ñu ne nañ génnee suñ doole génnee suñ ñaq xamal rek waa rabita bi ne lépp lu leen lépp lu seen yitte ànd nañ ko ñoom waaye nag li des ci xeex bi ndax xeex lañ ko tuddee ñun xeex jàngoro bi waaye nag xeex itam ngir daara tasaaroo fi am doole loolu moom fas nañ ko ba fekk suuf du ñu fete kaw fas nañ ko yenu ànd ko ñoom. Euh, seen mbokk Xaadi Jaxate eh, eh, fii ci Touba Foras di wax ci kàdduk rabitatul madaris quraniya fi Sénégal faran Touba ci njiital Serigne Basiru moom sëriñ Fadilu mi nga xam ne mooy rais saraf di président d'honneur u bi Serigne Basiru mu sëriñ Habibu di président actif bi ak mboolem kilifa yi nga xam ne eh, ñoom lañu àndal di leen nuyu ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo teew fii te ñu ëpp ci ñoom di ay munasiq maanaam ay coordonnateurs yi selil ci section bu Touba eh, rabita bi dafa composé wu ci dëkk bi ci fanweeri sous section muy section bu Touba sous section bu nekk am ku ko jiite am na ci mbooloo mi ñu ñëwut ngir ay téq waaye ñi ci ñëw ñoo jëmmal ñi ñëwul euh, ñu leen di nuyu sëñ maam Cheikh Seye yaak ñi nga àndal ci aljabha al muridiya lil ulumi wal amal euh, di mbooloo mu am solo moo xam ne kilifa yi yàgg nañ koo bàyyi xel ngir taxawaay bu ngeen am tey jii ngeen jëmmalaat taxawaay boobu mooy xew-xew bi am ci réew mi di coronavirus bi eh, tax daanaka yëngutu réew mépp taxaw wax yépp jëm ci ngeen taxaw ci ñaari taxawaay eh, taxawaayu citoyen yëg ne ci réew mi ngeen bokk te réew mépp mobilisé ba président de la république woote ngeen wuy ji ca loola Euh, muy taxawaayu citoyen bu rafet waaye it taxawaayu ab juliit bu murit euh, roy mu cheikh mun Mountakha mi nga xam ne moom dafa mel ni ab wuyoom sax dafa jiitu woote ba te ba mu wuyoo ba mu wuyoo ca loola ba noppiit mu digal kuy murit lu mu ca man mu def ko ngeen wuy ji ca woote boobe ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan suñu boroom mu nangul leen. tey am mbégte ndax mbooloo moo xam ne ña ko composé dañoo dëkk Touba yàlla dogal ni nga ko waxee àddina di ñaari tànk tànkub diine ak tànkub àddina mel ne seen liggéey daa gën a màcce ca tànkub àddina ba waaye ku dégg ni nga waxee dana xam ne euh, diine ji it la ca war jiitu na waaye ngeen bàyyi xel jullit googu ak dëkk Touba googu ba waxtu wu nekk ngeen di bàyyi xel dëkk bi ba boole seen bopp tudde woon ko sopp Touba tey def lu Touba sopp lool yi di lu am solo ndax nit mën na ne sopp Touba ba noppi nga seen ko muy def loo xam ne danga naan xanaa du kii mooy ki sopp Touba waaye yéen jëf jii day tegtale ne ñi ne woon Touba lañ soppkat ci li Touba gën a sopp ci ngeen wuy si tey jii ba sëriñ bi. tudde leen al jabha al muridiya lil ulumi wal amal jabha xëy na fii bariwuñ luñ koy miin waaye front mbooloo moo xam ne dañoo aju ci murid gi te di ko yëngatul ci xam-xam yi ak jëf kon loolu di lu ama am solo te jëf jii da koy firndeel eh, ni ngeen waxoon it kilifay rabita baa ngi nii jot li woon nañ leen ko muy lii moom ab tàmbali la rek boo xam ne da ngeen koo bëgg a tàmbalee ci eh, tolluwaay bi ndax tolluwaay bi soxla na ko eh, jàppale donga yi bañ mën a toog ci daara yi jàppale leen ci ab dund loolu waxtu wu nekk baax na waaye waxtu wi la ko gën a laaj ndax ku ne xam na ne ay ngant yu bari am na ñu bari dañ koy gën a séentoo ci ne daar dongo yi doon yalwaani tolluwaay bi mënatuñoo yalwaani waaye xataa dongo yi nga xam ne yalwaani wuñu woon it ku ne yëg na ne eh, kiris bi am daanaka bàyyiwul fenn rawatina bu fekkee ñu ëpp ci ñoom seeni wayjur ci diaspora bi lañ nekk am na ñoo xam ne metre nañ leen en quarantaine ca fañ ne même kuñ ci deful quarantaine it doo am foo jëm doo liggéey eh, transfert yi d'argent yi sax am na problème daanaka fi ñu toll nii bis bu nekk ab sëñ daara dana dalal ku waroon a indi te bu ñëwee ay wax la koy indil te lam koy wax xel da koy nangu kon njàppale daara moom daara yëpp ko soxla ba tax kon lii ngeen def ñu di ko rafetlu bu baax a baax di leen ci sant te di leen ñaanal tawféexi suñ borom eh, di leen ñaanal it ak yokkute ca fa ngeen nekk. ndax nit su fekkente ne lu mu am lislaam am ca wàllam képp ku lislaam ñor danga koy ñaanal di jaare ci seen jëf ji it di tàllal loxo seen morom yëpp mooy fépp fu ab jullit nekk ku yàlla man loo dara nga bàyyi ci xel daaree niñ ko waxe ndax yërmande dafa am solo te tàmbalee ko ci tout tànk ya nekk ca daara ja euh, gën a tee am solo kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay bi euh, tey bàyyi xel it fas yéene noonu yi ngeen tàllale loxo muy li jëm ci kanam lépp lu ca daara ittewoo lu ngeen ca man taxawee ko kon loolu it nangul nañ leen loxo boobu fas yéene ànd ceeg yéen ndax it soxla nañ lu mel noonu ku ne xam na ne organisation boo xam ne ay sëriñ daara rekk ko séq dana bari lool luñ bëgg a lijjanti sax muy ndax gis nga tey jii rek li fi teew lu ko ëppaat des na waaye xat-xati daara ndax am na ci ñoo xam ne woo nañ ma ne dañoo jaar ci armeel yi am ñu ñuy jullee amaana am na koo xam ne am na ku muy tuddal ak daara jaak yu mel noonu mën na leen a të li ñuy dund ci vie sociale suñ ko boolee ak daara ji daanaka di taxawaat leneen jafe dana leen jafe kon suñu amee ay nit yuñ bokkal pas-pas ñu joxe seen bopp man leen a taxawu ca wet yooya loola ak cant lañ koy def bu baax a baax di leen wax marhaban ahlan wa sahlan kon di leen wax ne rek euh, jàppe nañu leen kenn ci ci suñu biir fas yéene ànd ak yéen ci loolu di sant nag mbooloo mi bu baax a baax waaw daa daaira bi mooy wax naa ko sànq al jëbha al muridiya lil mi wal amal bi tamit niñ ko présenté baax na waaw wax naa ne ñi fi teew ñooy coordinateur u cellule yi section wu Touba dafa def fanweeri sous section dañ tudd cellule di tudd sous section ñii fi teew nag ñooy ñi leen jiite ak ñi nga xam ne accès guñu jëmmi Rabita ci boppam it moom lu gën a yaatu la ndax loolu dama tudd section Touba kon mooy tegtale ne am na yeneen section soo demoon tey jii Fass Touré sëñ Abdou Aziz bu Fass mooy premier vice président nga dem kokki sëñ Makhtar Naarlo mooy deuxième vice président sëriñ moor Diop ca Ndar nekk troisième sëñ Basirou Dieng ca Njaareem ilal axiri ak daara yu mag yu baree bari yu cosaan yu ñu xam ci réew mi nekk ci ay membre yor seeni section loolu door a ànd nag nekk euh, rabita bi muy kenn ci mbooloo yi nga xam ne dañuy taxawu njàngum alxuraan ak jàngale ko euh, di rafetlu jëf ji comme ni ma waxoon ci tàmbali gi bi eh, état yëkkatee loxoom ngeen wuy ca kon état moomu it ñu ngi koy soññ bu baax gannaaw bu ñu ko santee ci taxawaay yi xam nañ ne noppalu wuñ fan yi waxtu nekk ñu ngi ci ay kër-kër waaye yooyu ñu yëkkati te ne dañ koy dimbalee askan wi kon ca biir loola it nañ xam ne am na ca askan wa ñu ko soxla ta mat caa bàyyi xel muy daara eh, di leen ca lancé appel it ne gunge leen ci lu luñ mën a tooge ca biir daara ya la daara gën a bëgg ci accompagner accompagner leen ñu delloo gone yi ndax fi ñu toll nii am na fon bu ñu dégaase wax ne dañoo bëgg sëñ daara bu bëgg a delloo say gone ñu organiser la karawaan wut oto def ca carburant ñu yóbbu gone ya man dama leen ne ñama ci recevoir oon dama leen ne fond boobee ñu jël te di ko bëgg a def carburant buy delloo gone yi nañ ko dawal ci reer bi nañ ko dawal ci reer bi moo gën ñu di ko def carburant muy delloo te sax delloo moom ndax doo xam fañ jëm dañ fekk feebaram déet xaw ma kon delloo moom du du xalaat ñii moom kenn demandé wu ci delloo lii ngeen def lañ demandé mooy ku leen jàppale ci luñ mën a taxawoo xale yi kon loolu it appel bu jëm ci état la ñu di leen ko bàyyiloo xel lim lëkkalool it muy jàkka yi ak jumaa yi moom it ñu gën cee bàyyi xel xam ne eh, yi nit ñi soxla ñoom ñu xam ne nit ñi dañ koo soxla ba tax confinement dañ koy wax rek waaye total mënuñu caa àgg ndax dañoo xam ne nit ñi dañoo soxla marché yi dañoo soxla transport bi dañoo soxla dañoo soxla xataa assemblée ba dañ koo soxla ba woote nañ fa rationaliser ko organiser ko fedd euh, fête de l'indépendance l'indépendance dafa sacré ba kenn mënu koo neenal ñu def ko ca biir pale ba ak nañ ko defee yooyu yëpp yu baax la waaye jàkka ji lañ gën a soxla nañ organiser yooya ba def ko defin wu yem woo xam ne docteur yi suñ ca demee danañ gis ne loola tegu na ci yoon nañ def noonu ci jàkka yi jàkka ju téeméeri nit mën a nekk suñ ca defee juróom fukki nit mbaa ñeen fukki nit te la ca war ñu def ko loola la diine bëgg danañ ko am ba noppi te ndigal yi docteur yi dana fa dana fa am kon loolu it ñu ngi ciy bàyyi lu xel la ca toppit mooy puus waxtu yi ba mu àgg vingt et une lu néew néew ndax nit ñi mën a dem defi seen farata ci jàkka yi delluwaat seeni kër te duñ am problème reculer ko ba 5 heures matin nit mën a jóg dem ca jàkka ja euh, defi la muy def te du dajee kenn kon loolu daal message la boo xam ne ñi ngi ko ñi ngi ciy bàyyiloo xel état di sant ñëpp nag leen gërëm ci turu bi di wax ne yàlla na yàlla nangu jëf ji te nangu jëf yi jëpp aji jëf joo xam ne jëf na ndax fi mu toll nii euh, jëfkat yi bari nañu lool jëfkat yi bari nañ lool tàmbale ko Cheikh Mouhamadul Mountakha ba yëf xewee rek la yëkkati lu am solo loo xam ne ëpp na sax la mu daan yëkkati euh, teg ko ci loxob sëñ Maam ñu jox ko daara yi noonu it mbokki taalibe yu baree baree bari sëñ Cheikh Abdou Bali sëñ abdu Samat mu sëriñ Soaybu euh, Touba ci kanam sëñ Souley Diagne ba ci don bi nga xam ne euh, maître Madické Niang joxoon na ko gouverneur ci comité régional bi amoon na ca 60 sacs yu ñu joxoon daara ji ak la mu àndal ak lii ngeen jëf muy jëf ju am solo soo demoon ba njaareem tey jii eh, def nañu ay jëf yu am solo yoo xam ne ñoom daanaka bi yëf yi amee rek xanaa bis bu njëkk ba bi couvre-feu bi amee bis bu njëkk ba daa mel da leen a bett waaye ca suba sa rek eh, moo xam sëñ daam jaane ak yeneen daa daayira yoo xam ne moom dañoo dal di spontanément dañoo daal di sosu di toggal daara ya tey jii boo demoon njaareem trois heures ay oto ngi taxaw sëf ay mën a tàmbali di dugg ci daara yi di distribuer ay reer loolu di jëf ju rafet a rafet joo xam ne moom it Sénégal gépp nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko jëfee noonu ba ci ay fan yi recevoir nañ fi ay mbokki étudiants ay gone yu ndaw yoo xam ne daanaka ci wut pass dem jànge lañ doon toll waaye dañoo lijjanti ba amu miskit ñëw ne ñoom ñoo ko jàppee ci daara yi loolu kon di jëf ju rafet joo xam ne dañ leen cey sant ba ci suñu mbokk ku mel ne eh, Ablaye ji ca Sénégal gis nañu moom it mu def don bu am solo bu tasaaroo ci daara yi kon day tegtale rek ne jullit yi ñu ngi koy bàyyi xel waaye ñu di leen ca soññ rek tey ñaan suñu borom nangul ñëpp te mbas mii mu teggi ko ndax xam nañu ne moom rek moo ci man dara yàlla nañu ko boole teggil eh, di sant bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne ñëpp am nañ ci taxawaay eh, en particulier ku mel ne sëñ Modou Jaxate Jang mi nga xam ne li ñu Hamsatou Wasly relation bi ci diggante al jëbha al muridiya ak eh, ak rabita bi ci la jaare loolu it maa ngi koy wax rek démb léeg-léeg Euh, am na silla silla yoo xam ne buñ gisoon ku man dara dañ ko yóbbu ca daara ja rek euh, defak moom la ñuy def ak moom waaye bi mu xamee ne ñii ah, liñ man yaatu na daf ne nañ ko yaatal bu yóbbu ko ci penc ma loolu jëfin wu rafet la woo xam ne euh, ñi ngi ko ciy sant di sant ñëpp tàmbalee ci rek leeral ne don bi mi ngi toll ci juróom-ñett fukki saako yi ceeb juróom-ñett fukki gorosi suukar yu 5 kilo ak ñeen fukki bi bidon yi diw yu vingt litres ñu jëmale ko ci ñeen fukki daara yoo xam ne mooy kayit wi ñu leen jox léegi kenn ku ci nekk def nañ ci turam ak santam ak fa mu dëkkee ci Touba ak numéro téléphone euh, loolu it séddale yi weesu noonu lañ ci doon doxee saa bu amee lu ñuy séddale buñ xamee li ci rabita bi am nu mu toll dañuy woo mun munasix yi muy coordonnateur yi wet gu nekk ka fa jiite ne ko jox ñu nangami tur ñoom ñoo xam ñañ dëkkal ñiñ jox ak ñiñ joxagut ñu def list indi ñu jox leen bu ëllëgee bu leneen dikkee ñu defaat ko ba fii ñuy wax ak yéen daara dafa yaatu ci dëkk bi am na daara yoo xam ne malgré séddale yii ma fi tudd yëpp taxagut mën a àgg euh, dëgg la kon koo xam ne gis nañu seddale dégg ñu tudd ay ay limta ak seegut it na xam ne daara moo yaatu waaye ñu ngi ci yoon wi di ñëw xëy na nag daanu dajut suuf wala euh, dajal fépp moo moo yombut waaye ñi joxe am nañ ci yéene lool liñ ñuy joxit ñii ñu koy jaarale ma ngay jàll ca fam jëm yaakaar naa ne ñi ko seq moom xam nañ ko te yaakaar naa ne bu lu mel nii dëkkul fu waay nekk te daara ci dëkk bi moom dana la fa fekk